di félicité waat aussi bara bépp euh, responsable bi nga xam ne mu ngi ci garage bi rawatina euh, Pape Diop bi nga xam ne moo ko jiite euh, di félicité regroupement des chauffeurs professionnels bu région de Thiès ñi nga xam ne ñoo sos bés bi bés bi am na solo trop lu tax ndaxte xëy na yàgg nañ di fi ñëw yàgg nañu di di jëriñoo garage mais tey ah dañ fi ñëw ngir waxtaan ak yéen te xalaat yi ñu fi dégg vraiment nekk na yu am solo ñu ngi gërëmit euh, suñu mbokk euh, Sayer ci témoignage wu def euh, dañu leen liggéey boo xam ne dañ ko daan def nit ñi di ci gis seen bopp loolu rek doy na salaire loolu rek doy na salaire parce que liggéey boo gis loo mënti toll loo mënti am bu ci nit ñi kontaanul jarul ngay ngay ngay yëkkati dënn li ci gën am solo mooy ndax lan la fa def lan moo fa yàqu lan la fa defar loolu moom solo fii nag nga xam ne euh, la ñu nekk ci garage bi euh, damay laaj sànq euh, fa sar ma ne ko ndax garage yu Sénégal ndax am na poste médical mu dama dere xam nga béréb bu toll yi Sénégal di fa daje ku nekk foo mënti nekk nga jóge Tamba jóge extérieur jóge Ziguinchor nga ñëw ndogal mun na la daal ngay passager ndogal mun na la daal wala jàngoro dab ngay chauffeur ndogal mun na la daal kenn ñaanu ko wala jàngoro dab la balaa ngay yëkkati sa xaalis di dem di faju ji war nga mun a fekk ci béréb bi benn poste médical mu nekk poste médical avancé ñu mun laa xool xëy na sax balaa ngay yeb wala boo amee yenn jafe-jafe yi ñu mën laa xool saytu la loolu dafa am solo yaakaar naa loolu rôle état la te ñun loolu dañ ko dugal ci suñu programme parce que lu ñu seetlu la bi ci des si wàllu couverture médicale yàgg naa di waxtaan ak euh, chauffeur yi parce que dugulee euh, may na nettali benn anecdote ne euh, ba ñuy def yenn activité politique yi dafa am ay xale yoo xam ne ñenn ñu ay daw lañu dañ daan dawal moo seetlu nañu heure bu ñu rombee demaat ñu sànni ñu xeer euh, benn bés ñu woo leen ñu leen wan kan moo leen di sànniloo xeer ñu ne ñu bi moo ñuy sànniloo xeer ñaata leen def fay ñu ne ma def ñuy fay 30 par jour moo woo leen man la yéen ana seen permis ñu ne ñun kenn amu ci permis jour boobu lañ leen woo yaakaar naa Jibi Seck mu ngi nii ñu defal leen programme permis may leen 10 permis depuis boobu. ñun bu ñuy dugg si ñoo ñuy teeru seen xeer yi dakk na parce que am na yenn yoo xam ne du violence mooy xaj violence xel la mais de fekk na aussi dafa am ñoo xam ne ci ndaw yi dañ leen di jëriñoo te loolu aussi baaxul euh, ma leen di xamal ne suñu lëkkaloo ci euh, wàllu liggéey ak transport euh, vraiment du léegi du gulet moo tax bi ñuy ñëw fii aussi Euh, am na loo xam ne jot nañ ko waxtaan ci wàllu programme bi nga xam ne moom la ñu tugal ci suñu euh, ci suñu mbébét ci réew mi wante nag ci secteur transport benn yaakaar naa wax ngeen ko mooy modernisation secteur transport bu ñu nee modernisation liñ ci njëkk xalaat mooy ki nga xam ne mooy dawal ak li nga xam ne moom lay utiliser pour dawal mooy oto bi pour man ñaar yooyu ñooy premier élément de sécurité ñooy premier élément de modernisation benn mooy man dama jàpp ne chauffeur dañ ko war a former muy chauffeuru transport public di transport privé di armée di administration di fépp dañ ko war a former man dama jàpp ne chauffeuru Sénégal tey ñi nga xam ne ñooy transporter population Sénégal formation dafa war état newuñu sa état gàddu leen mais lim ci war a gàddu bari na ndaxte daf lay transporter sa population naam am na loo ciy gagné ndax yow yaa ciy liggéey mais tra boo assuré formation chauffeur bi yaa ngi assuré sécurité population bi yaa ngi assuré aussi profession ki nga xam ne tey moom mooy dawalal sa population loolu priorité la te am na loo xam ne euh, mbéwét nañ ko maanaam nga am benn centre boo xam ne dafay former ñëpp ñu nekk ci transport public. bi ci si wàllu suivi médical wax naa ko sànq ma ne dama gëm ne yenn garage yu mag yi nga xam ne population ji fay daje par jour bari nañu car foofu war naa benn post médical ñu mën di leen xool di leen saytu di xool seen jàngoro di xool. yan jafe-jafe la ñu am loolu dafa am solo euh, donc ci question boobu euh, sëñ Xadim am na loo xam ne euh, vraiment am na ci yéene te yéene bu mat la parce que dañu gëm ne lii dafa nekk ci lu mënul manqué ci askanu ñi ngay xam ne ñooy daje ci transport muy force de police di force de santé ndax garage bu bërëb liggéeykaay nit ñi dañ fay yendu fa la ñuy defee donc war nañ ko mën a gën a dooleel war nañ ko gën a mën a sécuriser war nañ ko gën a mën a jëmbal te loolu yaakaar naa ci suñu priorité la mi des si wàllu carrière wax ngeen ko sànq ndax dangay liggéey ba retraité loolu sant yàlla parce que liggéey ba retraité ba sa doom euh, nga mën di bokk ak moom liggéey loolu sant yàlla ndaxte ndogal mu na la dal wala dog kenn ñaanu ko donc loolu bu amee it baax na ñu xalaat. ci wàllu retraite ndax ñëpp xam na ne kàttan am na fu mu yem bés na ñëw xëy na dootoo mën a te li nga daan man li ngay xalaat ak li ngay mën a jëriñoo ci sa àdduna mooy retraite te retraite ñëpp a ko ñaan te baax na ak assurance yi wala ak état xalaat nan la ñuy fexee ba chauffeur si nga xam ne tey yàlla def na ñoom ñoo téye secteur bi di yóbbu nit ñi ak andi ñu xool nan lañ leen leen di wutal retraite loolu lu am solo la loolu it bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy plan de carrière chauffeur yi nga nekk dañu nga xam ne dañu nekk ci secteur public ak privé bi ci des mooy ci wàll bi nga xam ne euh, mooy euh, mooy modernisation secteur transport ñu nag dañu yàgg di seetlu ne modernisation bi kenn du ne amul ndax gis nañ fii yu bees yu fi ñëw ay oto mais xëy na fiñ ko war a gisee gisuñu ko fa xëy na ni mu war a jaar yoon jaaru ko yoon te loolu aussi dafa baax ñu fexe ba transport bi buñ koy moderniser ñu xalaat ci ñi nga xam ne ñoo yore oto yi ñooy borom oto yi mais ñu xalaat ci aussi chauffeur si ñaar la borom oto yi ak chauffeur si ñu xalaat ci aussi ne lii nekkul loo xam ne ci benn at lay doon parce que ñëpp xam nañ njëgu oto baax bu bees lu muy jaar mais yaakaar naa nga am park bu bees sur cinq moo gën parc boo xam ne. renouvellement ba dafay yéex jafe-jafe yi bari na te liñ ciy fayaat dafay bari ci wàll bi nga xam ne mooy ndog-ndog yi mooy accident yi kenn ñaanu ko yàlla looloo tax ma ne programme modernisation transport ginnaaw axe routier yi ginnaaw tali yi formation la pour chauffeur yi couverture maladie retraite ak beneen fànn bi mooy modernisation oto yi Euh, renouvellement parc bi renouvellement bi loolu dafa war a nekk sur priorité lépp luy infrastructure boo xam ne dafa jëm ci wàllu mobilité loolu lu ñu war a lu ñu war a soxal ñu nag euh, euh, wax dëgg yàlla Thiès la ñu sokkee ko te mobilité bi ni mu yombe woon avant yombetul loolu ndaxte da daan xëy fii garage boo fi ñëwee jël fi oto du jafe bu oto amul nga jël train tey train bi lu jafe la aussi xëy na nekk leen ci secteur boobu mais mënuma ko ñàkk tudd ndaxte dañuy liggéey ak cheminots yi te ñëw it li leen metti bari na donc bu ñu nee modernisation transport secteur yu bari la la la lal transport routier transport ferroviaire ak transport maritime sànq euh, suñu mbokk Pape Sane nee dafa ñëw ba Padois càng fa am ay jafe-jafe loolu ñëpp lay daal. ñëpp lay dal ndaxte euh, parfois nga bëgg a dugg Dakar wala génn wala sax bi da nga gis ne pour nga génn wala pour nga bouger dafa bari ay jafe-jafe loolu aussi li koy waral mooy ñàkk diversification transport parce que dañu gëm ne tey dëkk ak dëkk bari na dëkk yoo xam ne tey ñu ngi ci code bi yàgg nañu def fi wax ne euh, war nañoo mën a am ay bateau taxi ñoo xam ne dañuy yóbbu nit ñi dëkk ak dëkk comme transport routier mais boobu ba léegi gisaguñu loolu sotti loolu aussi dafa nekk ci loo xam ne dañ ko def priorité man di leen euh, amal ne suñu liggéey euh, yemul rek ci wàllu euh, transporteurs yi ñu koy def aussi nappkat yi yàgg nañ liggéey ak ñoom te ba ñu ngi koy def te ñoom it wax dëgg yàlla lu mel nii lañ daan def ak ñoom toog waxtaan ak ñoom déglu leen taataan seen xel ak seen xalaat fexe ba dugal ko ci programme boo xam ne bañ ko réaliser nit ki dina ci mës dina mën a gis ci moom ah, yokkute loolu lu am solo la ñu bàyyi ci xel bu baax a baax euh, maa ngi leen di remercier bu baax a baax waxtaan bi am na solo euh, wax dëgg am nañ yeneen activité mais waxtaan bi ni mu amee solo moo tax euh, amuñ ci benn yaxamti bu nekkee am na yeneen question wala yeneen xalaat yoo xam ne bu ngeen ko partagé ak ñun Euh, ñu ngi toog di leen déglu ndax yéen a ñu tax a jóg di leen gërëm di leen sant. la nekk vice président des chauffeurs professionnels de la de Thiès. waaw jërëjëf loolu moom dinaa sawar pour tontu ko li waral suñu jotaay bi mooy danoo moon tey si su journée de bu GIE des chauffeurs professionnels de la région de Thiès. mu mel ni dañ fay amoon suñu benn mbokkum chauffeur dem si yàlla si euh, Gora Guèye mu ngi dëkk fii Bangaaj Samb mu amoon tawat bi mu amee tawat ñu bëgg koo dimbali ñun. jëloon permis am doon ko wan chauffeur yi kenn ku nekk ñu wan la ko nga génne 1000 francs ñii 2000 pour mën ko dimbali bi ñu si ñun ñu xalaat ni lii du sutura te du xam-xam du sakit mooy sunu mbokkum chauffeur tawat wala mu nekk si ay jafe-jafe parce que oto ak jafe-jafe ñoo ànd. parce que man dama naan chauffeur bi saabu génnee këram benn tànkam mu ngi kaso ba mais benn tànkam aussi mu ngi hôpital mooy mën na mbëkk nit mu faatu ñu yóbbu ko kaso ba mais mën na def accident aussi moom mu faatu si wala mu sonn si. kon lan la war a def mooy nañu wut benn association boo xam ne association privée la tuddee ko ab GIE defar kayit di ba mu ne état reconnaître ñu def ko commerce ba mu leer ñu wut agrément wut registre de wut lépp taxawal ko pour wut ay cotisation yom ñoo koy def mensuel suñu bopp ñun ba ku ci am problème ñu mën laa taxaw mën laa dimbali te kenn du jël sa permis di ko wanteer si mbedd mi wala di wan ne diw daa feebar wala dafa soxla ndimbal ñu gis ni enseignants yi booloo nañu ñu gis ni même journalistes yi booloo nañu ñu gis ni même politiciens yi booloo nanu ñu ni ñun chauffeur pourquoi pas ñu booloo nekk benn particulièrement chauffeuru car parce que chauffeur taxi am nañ seen association des chauffeurs de taxi chauffeur seplage noonu ñu ni ñu chauffeur car yi pourquoi pas noonu ñu jéem koo wut pour ku sonn suñu biir wala ku soxla ndimbal du dem ci kenn wala du taal loxo ñun suñu kees nañuy jël dimbal la ci ñu ngi tàllal loxo ñu waa dem seeti monsieur Charles nga xam ne suñu dëkkandoo la ci le secrétaire général di GIE di Khalifa Diop ak Baye Modou di membre euh, moom mu nekk membre GIE bi aussi en même temps nekk euh, euh, yor benn commission bu tudd sociale si si si GIE bi ak Doudou Ciss di trésorier GIE bi ñoo ko Sarr ñu bokk dëkk bi may waxee Sarr Sarr ñëw na fi 2019 ñëw na fi gare routière boobu man la fekkoon ma nekkoon secrétaire général ne woon fii si gare routière bi maa recevoir woon mu fekk ñu fi. ñu gis Sarr aussi xamoon ni yàgg ko suivre bi mu nekk ENAM nekk jàngalekat bu mag si xam-xam si social si lépp économique ñu dem waxtaan ak moom këram mu xamal ñu naka la war a teg suñu tànk fi li war a def li ñu war a bàyyi ñu rafetlu ko bu baax bi ñu amee suñu journée bi tey aussi ñu ne comme moom lañ doon waxtaanal avant kenn ñu duñu xam non du du yell ñu ko fiy jéggi wut beneen parrain ñu def ko parrain d'honneur bis bi loolu moo waraloon. jotaay bi ñu invité Charles mu ñëw toog wax dëgg yàlla ñu rafetlu ni mu doxee bu baax a baax a baax a baax jërëjëf. waaw ah, monsieur Adama Diakhaté euh, chauffeur professionnel de la région de Thiès euh, nekk ci membre GIE chauffeur professionnel nekk adjoint secrétaire général. waaw euh. jotaay bi li ko waral mooy social luñ ko mën a wax. ndax euh, ñun chauffeur yi dañoo nekk euh, acteurs yoo xamante ni nii dañu xaw a néew doole ci fi ñu nekk parce que opérateur ni ñu koy waxee ñi ko gën a min mooy transporteur yi daanaka bu ñuy joxee oto nit ñuy liggéey loo par rapport ak chauffeur bi ak xam ak yelef bi war a am bon ñu gis ni ñun chauffeur yi war nañoo def benn mobilisation ndax euh, dañuy nekk ak naw le dañuy liggéey ba yàgg ñu am tawat taw tawat boobu nag mooy Euh, dañuy am ay jafe-jafe te li ñuy liggéey activité bi ñuy liggéey du leen mën a permettre ñu mën a yor seen kër mën a euh, faj seeni soxla léegi ñu def benn association boo xamante ni dañ ko bëgg boole ci euh, région de Thiès bi yëpp ba bàyyiwuñu kenn def ko ci loo xamante ni ni dañ ko suma sosé social social mooy dimbalante ndimbali nag dafa dem ba euh, yaakaar ni war naa mën a jur développement développement nag ci ci ngay liggéey pour mën a ki nga xamante ni euh, mën nga ko dimbali ci liggéey bi ngay liggéey ci nga mën a jaara pour dimbali ko ma waral euh, social bi ak ndaje mi ñu def tey waaw ñu jël parrain bi def ko monsieur Zarlo Ciss waaw mu nekk koo xamante ni nii yàgg nañ ko suivre niñ koy waxee ci télé yi ak programme yi nga xamante ni nii doon na ko liggéey euh, ci administratif bi ba mujj mu ber mu démissionné pour ber partem muy ëllëgu Sénégal waaw di ko sant bu baax nag di ko gërëm di ko ñaanal it li nga xamante ne nii bëgg na ko entamé ci Sénégal yàlla may ko ko. waaw GIE bi su ma juumul ci ñi nga xamante ni ñoo nekk euh, en contact ci WhatsApp nekk na presque cent quarante personnes. 142 euh, ci ñi am WhatsApp kon donc war na mën a nekk ay 200 et quelque parce que am na ñoo xamante ñi ngi ci te amuñu WhatsApp waaw bon dinañu def chaque mois mille francs dinañ ko cotiser dinañ jënd carte de membre 2000 francs pour loo xamante ni dinañ mën am benn caution boo xamante ni képp ku ñu bëgg a dimbali dinañ la ci dimbali.